milieu bii ñu bëgg Sëñ Tuubaa ñoo fi ne ay murit ñoo fi ne ñoo xam ne liggéey rek leen ñor bëgg ñu jàppal leen ndax ñu liggéey ba nga xam lépp lu fi ayib mën ko fi dindi ndaxte maanaam civil mënta yar moroom ma kon ñi nga xam ne ñoom la yàlla jox ñu yor doole ak kattan na ñëw ku jàppale ñu mën fee jëlee li fi ayib mën fee liggéeyal Sëñ tubaa xam nga tey jii ñun ñi fi ne nekk ay civil tey jii boo fi dóoree nit ba gaañ ko nga am problème boo fa reyee nit waxi nopp kon civil mënut a yar morom ma. am nañu yàlla jox nguur ak doole ñoo xam ne loolu ñëw ko moom ñooñu ñooy ñëw ñu waxtaan ak ñoom ñu seet nu ñu jaxasoo ba mën ko lijjanti. waaw milieu bi moom moo demee noonu mais xam nga milieu bu mel nii il faut mu am ñoo xam dañuy liggéey daan seen doole ngir seen njaboot waaye am na ñoo xam tamit ay caaxaan ak fo ak sàcc moo leen tax a jóg. moom ñoonu la ñu àndal jaxasool ko moo tax moom li ci ëpp moom loolu la ñuy wax mais bari na ci gaa yoo xam ni gëm nañ seen bopp di liggéey. mais du milieu boo xamante ni bii ne ñëpp dañuy sàcc am na ñoo xam ne looloo leen tax a jóg mais am na ñoo xam dañuy liggéey di jaamu yàlla di liggéey di góorgóorlu ngir luñ teral seen njaboot loolu rek. waaw réseau moom xam nga recherche la rek parce que léeg-léeg ñu dem am recherche tamit ci réseau la ñu dem. réseau moom mënoo de moom mënoo am batsa boo xam da nga naan lii dana ma wan ni carrément ni kii réseau la parce que xam ne ñëpp mënuñoo yem defoon nañ fi sax batsa ni carrément kenn ku ci nekk bu heure telle jotee six heures jotee ngeen wàcc mais loolu tamit dañ léegi tellement que léegi biñ demee jàpp ñu yóbbu ñu tamit biñ leen ko wane dañ ñu liiru dara xam nga carte d'identité moo gën a fort mais tamit ñu am ne bii ne day ànd ak facture boo leen ko wane duñ ko gëm ñoom soxlawuñ loolu dañuy jàpp fii daal yóbbu la laaj la xaalis parce que ñoom nee nañ milieu bi daal baaxul dañ koy aaye loolu la ñu wax ñun moom ñu ci bëpp liggéey rek moo ñu tax a jóg moom lañ gëm tamit ah ñun moom léeg-léeg dañuy jënd yu bees ci magasin bi mais parfois tamit nit jóge fee du am moyen ñëw ni la téléphone am laa yor dugal la ko xam nga tamit ci liggéey la bokk parce que mënoo chaque jour nit ñëw xool téléphone ni yoruma xaalis mais yor naa téléphone bu ma dugal da nga koy jël mais comme nag ñu mënuñoo amuñu magasin amuñu moyen pour ubbi magasin liñ mën di business ci liggéey bi léeg-léeg ñu jënd lu bees léeg nit ñëw fee amul moyen jox na téléphone ñu jël ko mais nag nekkul ni carrément dañuy jël fii ay occasion wala dañuy jël yeneen téléphones yoo xam ne mooy loolu liñ fi liñ fiy liggéey daal mooy téléphones yi bees lañuy jënd boole ko occasion yi ñuy wax ni tamit ñu gën a góorgóorlu gën a fonkaat suñu liggéey parce que ci la ñu am lu ñu am quoi kon waruñoo nangu ñu ko yàqal nit ñu tamit nañu xamee ñi fiy liggéey ak ñi fi ak ñi nga xam ne dañuy ñëw du lubal nañ koy xàmmee quoi parce que bari na ñoo xamante ne ay responsabilité lañ kër lañ yor loolu laay ñaaxaat nit ñi daal ñu gën a góorgóorlu. milieu bi la quoi parce que koo ne risque balaay liggéey rek fi dem du dal wala dalay dëggale foofu dëggul quoi parce que fii ñi fi nekk di daan seen doole ak ñi fi nekk taxawaalu bokkuñu quoi ndax foo gis ñu am na lu bon quoi. borom kër waaw avantage la parce que fi mu toll nii même loo bëgg a dox tey mën nga koo dox ba pare doog a xëy si parce que loolu moom du la yàqal parce que ni ko ni ko yor sa liggéey boobu moom yaakaar naa loolu mën la ko yàqal quoi waaw man nga boo amee sa yitee mën nga koo dox ba pare ñëw doog a a si mën nga gont tamit mën nga toog ba 5 heures 6 nga ñëw gont balaa timis nga am li nga war a am ñibbi quoi comme bu ma xëyee nii ba mu wàccee rek rek laa mën a toog ak ñoom guddi gi rek non non léeg-léeg damay wàcc mais tamit ñoom dama comprendre quoi xam ne man liggéey moom a yëkkati xam nga wàcc man du am fenn solo moo wàccee jeex na sama néeg laay toog ba tëdd jot man tëdd quoi amul fenn solo. waaw réseau bi moom xam nga tur réseau moo garaaw soo xasee bu tudd ko rek ñu bari bu ñu ko déggee dañuy jàpp ne milieu bu garaaw la wala loolu fekk ne ñu fi nekk ñu si bëri bu ndee 100 pour cent 90 yëpp daal seen doole moo leen fi indee mais du ñàkk nag ñoo xam ne dañuy ñëw pour saltel wala dara mais loolu moom xam nga rek am nañu ko moom côté boobu suñu jógee pour ñëw seppi ñoon dañ leen seppi mais su leen bàyyi nañ noonu tamit ñoom ñoo leen bàyyi noonu rek mais ñun ñu fi liggéey ñun daan suñu doole tamit duñ seetaan ñoom di ko yàq ndax ñun ñu ngi seen suñu teraanga di dundal suñu njaboot. non loolu moom bu pour mu yombu faaw ñu ànd ak takk der yi ñu dooleel nu ñaax